li rasulillahi laa waaye na jàll mu ne ko mbàkke mu ne ko sa nijaay Ibra Faal ak ña deme ni moom ak saw liggéey yi dinaa la wax tey dara yéen day seetaan leen temps yàlla dindi na alquran digle na ci tere na ci ngeen lank ndigal mi ne du ngeen ko def tëdd ci tere mi ne ngeen ko bàyyi ana ku ngeen sukkandiku ba ñu ne loola man waaye da ngeen xam ne Mamat siiti waxal naa leen nag sama borom ba defaral naa leen ak moom mer nañ leen merewoon siiti defaral na ma leen ba ngeen gën seeni bokk bay defare santaaneem boobu ngeen lànkoon soppi na ko def na ko mbir marale naa leen ak sama borom ba seenu yàq ak seenu defar seen borom amatu ci xam ne lu ngeen def di gëm kooku mu mujjee ko féetee man la waaye julli ak koor ak li alxuraan julli li mu tere rijaal defal naa la ko ci liggéey yët ma alal yaa duna ba def ko sa soxla sa àdduna rijaal la yàlla nga sa bopp nekkal ma ca naaj wa liggéeyal ma weexal ma nekkal la ci kër gi bindal la kaaraange man jara ji ma lekk sa weexal wax sa jàngoro jàngoro ji ma wax yàlla saafara ko te da nga gis ab sëriñ kër lakk ñu ne téere bi la taaliwul borom ka ko binda xor mu ne ko waaw mu ne ko kooku bi ndax war mu ne ko waaw mu ne ko naa doon sa bind kat ndëlëg ni ma weexal xanaa kon sax rek sa jàngoro mu ne ko waaw boobu loolu jëlee suñu ñàkk a julli loolu jëlee suñu ñàkk a bi nga xamee ni nekk nañu ci ay bis boobu ci fan yooyu ko Cheikh Bamba may lu mu ci lu ñëwul ak moom amut lu mu deful ci moom amut lii sañ nanu ko wax lii sañ nu koo wax waaye rek leen ci sañ wax danañ leen ci mosal ba mu leer nañ ba ngeen xam ne privilège la ñu am ndigal la ñu am licence la ñu am ca xaadim lu jóge lettre baa ngi si wax maxtu mi ba mu ko yeree bisu àjjuma bëccëg di gaaw la bind lettre ne ko lettre bi maa ngi ko bind ci waxtu gee ginnaaw gee laa ko bind ci ngoonu dibéer ci moom lettre bi moo di ki ñuy wax Muhammad te léegi muy rijaal ci rijaal bi tur woo xam ne jëmmal na kenn ku wecc mbooloo billaahi noonu la ko sëñ bi bindi lettre baa ngeeg man ñaan naa la na ma yót gën jaa yàgg nay àllarba ca ngoon wala alxames ci suba teel téeméeri gàtt téeméeri matu ceeb téeméeri matu din boo ñëwoon te gis ma xaw laa jafe nga fekk fu ku mel ni Modou Moustapha nga jox ko ko boo ma noppee gis def naa sëb sëriñ muy di togg di indi sama kër di jox sama njaboot loolu laa la digal nee na bi mu demee digal na ceeb